mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd bi ngeen ànd ak ñun seen chaîne youtube seen acti tv tey nag di gaawu fukki fan nag ñett si weerum août atum 2022 dañuy daal di ñëw ak yéen di gën a fës ci xibaar yi xibaar yi tey nag dinañ ko door ak réfection hôpitalu Le Dantec ginnaaw ba njiitu réew mi xam ne dina ko tëj fukki fan nag ñett bi ñu dëgmal jot na nag jël service radiothérapeutique bi yóbbu ko foofee sa Touba ci hôpital bu yees boobee muy hôpital Cheikhoul seexul xadim bu Touba malade ya nag itam dinañ leen transféré foofee pour ñu àggali seen saytub yaram leen nag di service cancérologique dinañ ko yóbbu foofee ci hôpital Dalal Jàmm laata ñuy defar hôpital boobu di la Dantec ñu dem Ziguinchor fekk ji fa coowal Idrissa Goudiaby muy ab dawalkatub taxi bi ñu faatoon foofee ci Ziguinchor ci fukki fan ak juróom ñaar ci weerum juin atum 2022 bi ñu génn ci ab manifestation bi opposition bi amaloon gannaaw ba enquêteurs yi defee seen liggéey jël nañ dossier yi jébbal ko procureur de la république procureur nag ba mu saytoo dossier ba pare jébbal na ko kiilee di waa tribunal bu grande instance de Ziguinchor autopsie bi ñu amal ci woy dawlu bi di Idrissa Goudiaby day firndeel rek que ab bala moo ko rey ca manifestation yooyee ñu amaloon foofee ca Ziguinchor ne nii nag dañuy daal di déglu yoon mu daal di ubbi ab information judiciaire wala mu daal di tëj dossier ki nga xam ni moo di Idrissa Goudiaby dañuy daal di dem ca Ndakaaru ci diwaanu Pikine gannaaw ba nga xam ni jot nañ fa jàpp ab xelam neexul door ko ba mu jaaree fa ñàkk fa bakkanam foofee ca réserve naturelle bu Technopole ci benn bërëb fajukaay yaayam nag mi ngi nakarlu li ni mel te di sàkku rek rek yoon daal di def liggéeyam gannaaw ba ñu jàppee ñaar ci ñoom ñi waraloon jëf ju bon joojee ba tey ci diwaanu ndakaaru gannaaw ki nga xam ni moo di François Makabu ba tey ci diwaanu ndakaaru gannaaw ki nga xam ne moo di François Makabu ñàkkoon na bakkanam fan yi ñu génn foofee ca prison bu Camp Pénal nag yoon nag ubbi amaloon na ab autopsie pour rekk xam lan moo indi deewub waa Makabu gannaaw autopsie boobu nag yoon jébbal na france François mbakka bu ay mbokkam ba tax na ñi le rek denc nañ ko ci talaata ji bi ñu génn autopsie bi nag yoon daal di ko saisir fas yéene wéyal enquête france François mbakka bu affaire législative ginnaaw ba Pape Diop demee fekk ji waa Benno Bokk Yaakaar ba tax ñu am majorité foofe ca assemblée nationale bu Sénégal moom bi di njiitu serviteur yi ñu gën koo xam ci Pape Djibril Fall nee day des si di opposition bi yi it fekk jiwul benn yoon Benno Bokk Yaakaar waaye tamit demul itam ànd ak ñi nga xam ne moo di waa coalition wallu Sénégal ba tey ci affaire législative ginnaaw ba ki li nga xam ni moo di njiitu serviteurs yi dem na jëlëb yoonu boppam moom tamit di njiitu AAR ñu gën koo xam ci Thierno Alassane Sall tamit ay naataangeem fësal nañu nii itam moom day ni ci opposition bu Sénégal bi waaye moom it tamit demul si Benno itam te teewul ki nga xam ni moo di coalition bi di wàllub Sénégal tiis ak naka la ñuy demee fee ca Allemagne ginnaaw bañ fa faatee ab ndaw bu am fukki at ak juróom benn xale bi leen nag ñu gën koo xam ci Mouhamadou Lamine Dramé dal dina ñàkk bakkanam foofee ca mën ginnaaw bañ ko dóoree bal ba mu jaaree fa ñàkk bakkanam dañuy daldi dem Kolda foofee di nemmeeku fa ab wàññeeku bu baax a baax ci garab yi ñuy dagg ba tax na ki di njiitub réewub Sénégal moom mi ngi rafetlu bu baax liggéeyu eaux et forêts yi xibaar yi nag dinañ ko ndar képpee foofee ci Italie ginnaaw ba ñu fa jàppee ab moodu moodu sénégalais muy jaay ay contrefaçon ba tax na kile di moodu moodu boobee mu ngi ci loxo la yoon. internetu SENactu TV tey nag lii lañ leen indiloon ci li gën fës ci xibaar yi di leen wax ne rek woy leen di abonné te bu leen fàttee di bës cross boobee di affiché ci suuf pour ngeen di mën am suñu ay vidéo dig daje ci yeneen. seen information fii la woon ci seen chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information à la prochaine ci yeneen rubrique